boobu man fukk waaw waaw jëlal lii waaw waaw waaye bi la benn ñëwee tey ni nga ñëwee nii def béeree rouge yàgg soo technique tey fa la technique bi war a féete. waaw en tout cas daal ànd na suñuy mbokk waa écrit sa ñaamur waa Grand Médine ànd ak sama papa Cheikh Bamba général saltige caajaay bu mag bi dëgg neexul te ku ñeme da ngaa dee nee naa ko coow li coow li àtt lay mujjee bu njàgg yàggee door feeñ neexul te liw bi liw bi ngelaw li la te sedd mënul si taafu kof dara. Alboury ñu ne bëre bi zootechnique la arrangé loolu fu côté fu ñu ko nekk. liggéey nañ fépp nee naa la fi mu ay fi biiroo ci des xaw ay ay ay minutes kon fi mu ne saaga yaakamtee xala wax ji jarul bëri tey dara xewul li su wayul waalu tëggul al bu day di nga di gis lépp ndax ñu ne élément temps lañ ci temps rek la ñu dox lu mu laaj koy def. ci ci xeex buñ ci woowee alburi. déggoo ma ne fuñ ma woo damay ñëw ragaluma fi ma jëm. sa maam fu ko ko daan tooñ tey benn nga war a jàkkaarloo ñu dóor yi war a demee. toogal nga seetaan toogal nga seetaan samay wax dara ci dañ. soo nee ku takkul verre mi yëpp na nga ko wut xam day gaaw waaw baax na. nee naa la fi mu ne nii daal jarutul wax ji di bari. Galaye bàyyil su daanee ñu toogaat ci plateau bi waxtaana ko. waaw même moom lu mu réglé mu ñëwaat. lay bi ñu ne TikTok leen boole Alboury zoo technique combat déclenchement ci ñaar ñëpp Alboury neexatoo utal combat waaye zoo technique it neexatoo utal combat tey dañu xam ndax Birame Penda Ndiémé day yor technique bi wala zoo technique day continuer technicien am njool ak ndaama waaye boo xoolee loxoy Jeux Techniques yi bul jàpp ni daa njool fu ne walla daa gàtt fu ne ndax xeex wala lan moo ciy génne Zo wa ngi ñaan Zo wa ngi wax arbitre nee na Alboury kaay Zo wa ngi jat Alboury am na wax raay ci kanam gi mu ngay waxaat combat bi la ñëpp di xaar Zo wa ngay jat am na lu mu wax taf ci jëbi ëffee ko ci gémmiñu Alboury ngi jat Zot ëffaat na taf ci jëbi ëffaat na tafaat ci jëbi ba muy ñetti yoon mu fomp ko arbitre nee na Alboury kaay ma ngay wax Alboury yor na nen ay waay nar naa yàqub cuuj mbaa omelette ak mayonnaise fii ci kaat appi waaye tey combat wu wëlbét kàng lañ soxla le 20 février Reug Reug solaat na lu mel nii yéen a Malikaan mbaa perkaal Zo juutu na Alboury wang arbitre nee na ko tojal nen bi Alboury toj na nen bi 20 février 2022 Alboury Zo technique Zo nee nañ nga sol sa prothèse arbitre nee na Alboury sa loxo yi faxas na ko Zo ma ngay fudd arbitre wax na ay consultant am Alboury arbitre arbitre a ngi wax ak moom Alboury a wax Zo technique Alboury Birame Penda Ndiémé ndax day xaar ñu mat fukk mu xeex wala benn lay xeexal tey Alboury arbitre nee na ndax pare na Zo pare nga nee na waaw arbitre ba sifflé na Zo technique tey gisuma jaw fara ci 16 bi ku nekk ngay jat ku nekk ngay jat ngemb lu naqaree jàpp lañu ngemb Alboury dox na fekki zoo zoo tibb na suuf raxasu waaye ndax loolu dina indi set zoo wa ngay mel ni kuy jayaxu Alboury zoo technique Alboury wa ngi doxee latéral Alboury koy liir Alboury zo technique zo ba do am avertissement nekkoo lit simple de zo nekkoo lit simple de zo lit avec frappe nga ne Alboury seere na lambataage ma ngay mépp Alboury wàcc na rëg-rëg ngay ambiance ak waa Caaroy Alboury Alboury cokkaas na Zo wàccee na garde gi Zo nekkoo lutte eh, avec frappe avec nga ne nekkoo simple combat TikTok Mame Less bàyyi jaabante bi ndax ñoom ñaar ku ci demaat TikTok arbitre àtte na leen ay Xaadim Kadapi lamb ji communiqué bi neexoon na ndax bërëb ko neexee nan yónni yàgg te seetaan Alboury ngi ñam cokaas Alboury daa mel daa sóor ni bañ soo yegsi ndax boo xoolee daa wàcc tolloog moom zoo ñëw na taxawaat zoo moytul zoo Alboury zoo Alboury Alboury zoo technique Alboury zoo technique Alboury Zo technique Alboury ràcc na ba ca suuf Zo ndax lii moom du metti Alboury Alboury Zo technique Alboury Zo technique Alboury a door ci suuf Alboury Zo technique ña ngay raam Alboury a door ci suuf Alboury a door ci suuf Alboury Zo technique Alboury ngi rukk ci suuf Zo ndax lii dana la arrangé Alboury Zo ay arbitre atte na leen Zo technique Alboury Alboury préparé na ay tànkam Alboury Zo technique Zo mu ngi nàcc ba léegi Zo mu ngi nàcc Birame Penda Ndiémé ak Zo Technique nee nañu TikTok boole combat bi waaye wëlbët gang lañ ciy xaar ci ñoom ñaar ñëpp ndax ku ci nekk doo yàq làmb waaye nii ñu taxawee tey dalul xel waaye Zo ndax raxasu bi nana set. Alboury Zo Technique. Alboury Zo Technique Alboury Zo Technique Alboury Zo Technique Alboury Zo ci suuf la jëm Alboury ñu dóor Alboury Zo technique Zo day ci tànk rek ndax njool la waaye bu demee lu mu fay fekk soxlawuñu ci combat bi wëlbët gàng Zo nanguwul sigi bëre ak Alboury Alboury na geño Zo teg na loxoom ca catu ngi dóor Alboury ngi dóor ci suuf waaw fu nga wax foofu xasan delloo fa sab loxo zo ndax doo dellu ardo zo ndax doo dellu ardo zo ndax doo dellu ardo rokkasu Alboury Birame Penda Ndiémé ndax bëñ fu fa fekk du ko waddal zo jàppoo zo technique Alboury seen bëre bi yàgg na communiqué bi ak bëre wute na loolu le 13 mars lay bong eh, Ibou Ndiaye ñoxo baay Alboury Ibou Ndiaye Obali ànd naag rëg-rëg di daw ndax duñ la dagg zoo technique Alboury arbitre ngi dóor ci suuf zoo technique Alboury arbitre nee na ngeen bëre